ñu ñëw fi nag monsieur le gouverneur ci turu Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xam ni mooy jëw jëwriñu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara mu boole ñu ak délégation bu mag waaye itam ñu ànd ak yeneen ñaari délégation donte ci ñu lañ bokk délégation bu njëkk bi mooy xam nga ni Cheikh Mouhamadou Amine bi ko seexul xadim di ko yebal mu ñëw Mbàkke Kajoor daf ko yebal ci ay mbokkam ci maam Amar Fall Mbàkke bi nga xam ni mooy waajuru sëriñ Cheikh Kajoor mii di imaamu Mbàkke Kajoor nga xam ni seexul xadim bi mu jógee Mbàkke Kajoor di ñibbi Tuubaa dafa dem Jolof jël fa rakki Maam Mor Anta muy sëñ Mbàkke Ibra bi nga xam ni mooy sëñ Mbàkke Kajoor ak njabootam nekk fa mu ñëw jox ko daara ji nga xam ni Momar Anta Sali moo ko sancoon ginnaaw bu mu jógee ñoro ànd ak Lat Joor ñibbisi fi ci Kajoor bi Lat Joor nekkee kër Amadou Yàlla indaale Momar Anta Sali mu xam ni ab sëriñ ak buur mënuñoo bokk am penc ci la ko laaj ni ko fokk nga wutal ma foo xam ni dama fay mën a jàngale bi mu ñëwee ci suuf su Mbàkke Kajoor sax jëkkuut a dal Mbàkke Kajoor waaye fi ñu wax ngébbal la ko jëkk a yóbbu waaye sëriñ bi bi mu xoolee foofa xam ni am na ay njeexital yu fa nekk mooy dafa am ñu fa dëkkoon mu wóor ko nit ñi dañoo dem rek waaye danañ dellu si mun ko suma seen wutal ma faneen en 1880 en 1880 nag ci la ko wutale Mbàkke Kajoor boobu Mamadou Anta Sali nekk fa di jàngale di yare daan fa àttale Lat Joor mu am fa ñetti at génn àddina foofu ci Mbàkke Kajoor sëriñ bi yóbbu ko deqale ba mu fa nekkee lu dul ci juróom-ñaari at war a ñibbi Mbàkke Bawol ci la jëli suñu maam ju sell jooju suñ Mbàkke Ibra indi ko ngir mu doonu daara ji nga xam ni góor yàlla gu ne jaar nga fa mën naa wax sëñ jaamal sëñ piir sëñ Ilimaan Saaxo ak ñeneen ñoo xam ne sax ay mbokki xaadir lañ jaar na ji daara jooju jàng fa kooku nga xam ni nag mooy xalifa sëñ Mbàkke Ibrahima sëñ Mbàkke Kajoor di sëriñ Moustapha moo xam ni bés bi bisam la ndax mooy kilifa gi mu jël sëriñ Cheikh Kajoor mii boole ko njabootu boppam muy sëñ Jili Mbàkke Gelo sëriñ Mbàkke Ngaabu sëñ Jili Mbàkke Parcelles Touba Parcelles sëñ Abibu Mbàkke sëñ Abdou Khoudous Mbàkke sëriñ Abdou Aziz Mbàkke ak sëriñ Abibu Mbàkke Kajoor ñoom ñëpp sëriñ Moustapha ñu leen dem leen ngeen ànd ak njabootu cheikh Mawlane Bara Serigne Moustapha ñi nga xam ne ñoom lañ dénk màggal gi ngeen ànd ko ñoom ba mu jeex tàkk loolu ànd bu rafet boobu moo amoon seen diggante ak cheikhul Khadim moo amoon diggante cheikh Mawlane Bara ak maam Amar Fall Mbacké loolu moo am seen diggante ba tey kon ñu sant leen gërëm leen ci mbégte moomu sëñ Cheikh Kadior sëñ Moustapha mi ngi sant bu baax ki nga xam ne itam moom la bokkaloon dëkk ci Mbacké Kadior muy ab xaritam lool di maam Cheikh Awa Balla xaritoo gu ñu xaritoo woon moo tax mu jël Cheikh Sidi Maxtaar tuddee ko maam Cheikh Awa Balla jox ko ko alaaji maam Thierno mi nga xam ni mooy xalifa maam Cheikh Awa Balla ni moom it bis bi na ma ko naan taxawoo bi fi Cheikh Sidi Maxtaar nekkee noonu rek la koy taxawoo moo tax mu jël sëñ Lamine may tooñ naan wàll yu ko yor di ko yebal moom ak une délégation ni ko na ñëw ànd ak ñoon ba maa ngi jàll kon nag mbégte moomu ñëpp ràññi nañ ko kon ñu ngi sant bu baax di leen gërëm xam ne maam sëñ maam Thierno moom bis bi sëñ Lamine moo ko moom. ci biir loolu nag mbooloo mi nga xam ni moo bàyyi ko ci sëñ Moustapha monsieur le gouverneur xam naa xat na lool waaye dañoo am loo xam ne wax dëgg yàlla xol dafa sedd ndax Cheikh Sidi Makhtar bu fi nekkee ñëpp daan ñëw mu won ñu ginnaaw depuis daaw mbooloo mi gën a toll nii fokk ñu leeral la ñi nga xam ne ñoo fi ñëw ki ci jiitu mooy Serigne Cheikh Mbacke Ahmadou Mbacke. mi nga xam ni doomu sëñ Sidi Ndar la mi ngi nii toog sëriñ Xaadim Moussaïd di xaadim boobu sëñ Moussaïd Baara sëriñ Modou Baara di sëriñ doomu sëñ Xaadim Awa Ba sëriñ Abdou Assis Xaadim Modou Baara sëriñ Abdou Karim Xaadim Modou Baara sëriñ Sidi Mbacke mais nga xam ni sama mag la waaye tuuti la ma magee di premier adjoint au maire bu Touba Mosquée sëriñ Abdou Khadim moom itam di sama mag. mu sëñ Basiru Xujja moom itam ñëw na teew fi sëriñ Abdourahim mu sëñ Ahmed Baara sëriñ Modou Baara Amar Fall sëriñ Abdou Aziz Ahmed Baara sëriñ Abdou Aziz mu sëñ Basiru Xujja sëñ Basiru Mbàkke mu sëñ Ahmed Baara sëñ Malick Mbàkke mu sëriñ Ahmed Baara sëriñ Xaadim Mbàkke mu Seex Sidi Maxtar ànd ak sëñ Aline Diop sëriñ Moustapha Mbàkke Abibu ak suñu mag ju baax je soxna Ami Mbàkke mu sëriñ Abdou Aziz Baara alhaji ahmadou fall nay di suñu diyaay mu jël kàddu legi alhaji dam job mi nga xam ni moo yore kàddu cheikh Mawlin Bara ci de Louga alhaji Abdullah job di jarbaatu sëriñ bi sëriñ abdou assis mu sëriñ cheikh Thioro di meeru Mbacke Kajoor alhaji Ibrahim jay moom Bayi bàyyi bàyyi Mbacke alhaji moustapha ndom sëriñ muji ñang bàyyi ko Touba Ngumba Ngeewul sëriñ xaadim Mbacke mu Ahmed ak monsieur Tine mi nga xam ne dañuy jàppale ci liggéey bi Ibra Sall Touba sëñ Mouhamadou Li Diom mooy bàyyi ko Mbour ak Badou Sey ak ñi nga xam ni ñëpp ay taalib lañ ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi monsieur le gouverneur. sëriñ Khadim Mbacke Cheikh Mat sëñ Cheikh Mat lay ak sëriñ Modou Aïssa wax naa ko léegi ak sëñ maam Para Mbacke mu sëñ Moustapha Aziz kon monsieur le gouverneur maa ngi ànd ak ñoom ñooñu bàyyi ko ci kilifa se kilifa yu sedd yi kilifa yu sell yi.

moo waxal Cheikh Sidi Mokhtar ni ko nañu koy fàttaliku ndax bu jëkkoon ñi ngi daan fàttaliku bis bi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara génnee àddina mu ni bis boobu nga xam ne ci feeñ jamono soxna maam Ami Mbacke bintu sëñ Modou Aïcha Mbacke moom mi ngi fii ñu ngi koy siyaar bu baax bis boobu ñi jëkkoon a jaayanteeg sëriñ bi Cheikhul Khadim da na a ba mu ñëw li leen liggéeyandoo wul ci seen borom lépp gan gi ñëw andil na leen woon kon kaay leen ngeen yeeweeku Cheikh Saliou wax ni bis boobu bisu taw feex la bisu faj aajo la bisu ndimbal la kon dee leen ko fàttaliku jox ci ndigal Cheikh Sidi Maxtaar moo tax mu koy fàttaliku. barab bi ñu koy fàttalikoo it muy Mbàkke Kajoor fi la Cheikhul Xadim yeesalawaat sunna Seydina Muhammadin Ali salaatu wa ndax fi la waxe woon ni shafahani rasulullahi salallahu taala alayhi wa sallam bi xawlihi rabbi asaabka bi himmatin wala rabbihim darsi faqat kon monsieur le gouverneur suñuy waajur dañ fay nekkoon doon woote màggal gi ba tey mu agsi ci ki nga xam ni mooy sët bu jëkk ci cheikh mahoulen bara muy sëñ moustapha muy woote màggal gi ñu am njort bu rafet bu baax nag ak cant ak i ngërëm jëme ko ci seenu wàll yéen autorités yi nga xam ni yéen dañ nekkal fii ci région de Louga ak département Kébémer ba ci arrondissement Darou Mouhty di leen sant di leen gërëm ndax Cheikh Sidi Makhtar ci ak nekkam nii rek ngeen ko daan taxawoo kon suñu dëddoo ngeen jël matukaay yoo xam ni moo gën a mat yi ngeen daan jël ci ak nekkam dañ leen ci sant di leen ci gërëm di leen ci ñaanal cant yooyu dem ba ca kaw seeni kilifa ministre de l' intérieur gouvernement bi yëpp premier ministre ba ci président Macky Sall ñu koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla defal ko ndimbal ak tawféex ba yéene yi nga xam ne yéene na ko ci Sénégal suñu borom dimbali ko ba man koo àggale bi barakati rasulillahi alayhi salaatu wasalaam ndax seex Mawlin Baaram moo ñu boole ci Cheikhul Khadim yàlla dogal ñu nekk ñun ñi ñëpp nga xam ni. am na ñu jël kaddu am na ñu ko jëlu ñu ànd Cheikh Moustapha dénk ñu organisation bi ñuy ànd di ko saytu te suñ masaa ñëw fii ba wax fi li ci wax tënk ko dara mosu cee manqué ci seen wet kon ñi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm am na yàqin bu wér ni magal gi nam daan demee rek lay demee incha allahu kon ñi ngi sant bu baax di gërëm sëñ Moustapha daal di sant njaboot gi ndax ndax lii rek la bëggoon saa su wootee ñëpp ñëw ànd ak moom ci ni ko bëggee kon mi ngi leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla ànd bi yàgg yaakaar naa saal bi itam min na lool sama kàddu ci Cheikh Moustapha ndax sëriñ bi moo ñu ko tànnaloon ni mooy taawu kër gi mu yor jikkoy sëriñ bi yor melokaanu sëriñ bi yor xàmmeek sëriñ bi yor muñuk sëriñ bi yor lewataayu sëriñ bi uf ñëpp su ko neexoon ñëw toog fii waaye dara jeeg jépp da ko bàyyi rakk yi kon ñu taxawu ko taxaw ba sëkk kon mi leen sant bu baax di leen gërëm di wax ni yëf yi moom seen yëf la lam wax keroog bi mu wootee ni fii ma toog ay at rek moo ma fi teg kon at yooyu jógul kenn ci yéen kon yëf yi seen yëf la te jàpp ngeen ci yéen ngeen ko kon ñu leen sant baax di leen gërëm moom nag la ma doon wax rek muy nit koo xam ni koo oyofal boppam la du nit ku oyof nag wàcce boppam oyofal boppam waaye li ñuy wax rek oyofaay boobu nga xam ni da koo oyofal boppam buñ ko ci fekkee buñ ko ci fekkee ndax day wax ni dañ ko bokk may wax ni kilifteef kenn du ko bokk kilifteef kenn ko bokk daa wàcce boppam oyof waaye Cheikh Saliou Mbacké daana wax ni oyofay gii nga xam ne dama ko oyofal sama wàcc sama bopp bokkuma kenn dimbali ma ci ku ko boobu mun taxaa ni mu mel ni mu oyofale boppam xam ni kilifa loolu mooy li ko war wàcce boppam oyof maasee ñëpp waaye oyofaay boobu waruñu ko cee dimbali hmm. ndax kilifa baat rek la am defal nga def bàyyil nga bàyyi te loolu moom ngeen ànd moom kon ñu ngi sant bu baax monsieur le gouverneur di leen gërëm ci taxawaay bi xam naa xat na moo tax bëgguñoo guddal waaye ñu may ma rek ma sant presse bi nga xam ne ñoo ànd ak ñun di ñu gunge ci màggal gi ni ko su préfet waxee ndax su tàmbalee ba kere muy jeex nii la ñuy ànd ak ñun di ñu jàpp ci liggéey bi te amu ci kenn koo xam ne am na loo xam ne teg nga ñu ko wàññi koy fayeeku muy ñi nga xam ne ay télévision lañ muy rajo yi muy presse écrite muy site internet yi ñi ngi sant bu baax di leen gërëm sëñ Dame Diop yaag Alaaji Madiye Fall moom dañu leen bàyyi ak sëñ Baara li taxoon sëriñ bi tànn leen yéen a ngi ci kon ñu leen sant bu baax ci taxawaay bi di leen gërëm